Euh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu alxaaji Mbégi Jóob ak Mame Ndokh TV euh, mbokki Sénégal tey yéen a ma gis ma toog ak maire Astou Seye Mbaye di yaay Mame Ndokh TV euh, Seydi Mouhamadinil Moustapha si responsable moral defati na la mu daan def mooy soxna Astou Seye Mbaye nga xamante ni ba mu juddoo yaayam soxna yaay ndox def ko jël jébbal ko soxna Safiétou Dem mu yar ko tabaarakallaahu waaye digganteem ak Seydi Mouhamadunil Moustapha si ku xam na ko waaye digganteem ak sëriñam bu tedd ba Seydi Cheikh Ahmed Tidiane si ku ne xam na ko Seydi Mouhamadunil Moustapha si nag defatina la mu daan def mooy gis ngeen xar moomu ngeen dégg ko muy mbee mooy xar mi mu jox soxna su sey mbaay ci tabaski ren gi defoon na ko ay at yu bare bare bare bare bare bare bare bëri sëriñ fu mu toll di ko defal teraanga dañu wax ni nag xale boo amee fukki at looy def ndayam na nga xam ndax bu màggee du ko fàtte ñun Seydi Mouhamadul Moustapha Sy amuñu fayam ñu ngi koy sant bu baax ndax ni mu ñu téyelee suñu wayjur wii tabaarakallahu bu korite jotee paquetub cinq cent mille bi ñëw saakub suukar saaku ceeb saaku dugub tabaarakallaahu ak yeneen ya muy àndal bu tabaski jotee mu jël xar muy jar six cent mille yónnee ko soxna Astou Seye loolu nag ñun njabootu soxna Astou Seye Mbaye yëpp ñu ngi ànd di wax Seyd Mouhamadul Moustapha Sy jërëjëf di ko wax merci beaucoup sama benn xarit daan na wax naan merci baat bu ndaw la waaye tubaab du ko wax ku deful dara sëriñ bi ñun njabootu soxna Astou Seye Mbaye yëpp ñu ngi lay wax merci beaucoup ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla nga am téeméeri at juróom fukk ci barke yonent bi tama ànd ak wér ñu ngi lay ñaanal yàlla nga ànd ak mucc ak mucc le dund ak dund le wér ak wér wérle fan wu gudd ak wér gi yaram sutura daayi man dund ba ay capitaine ay maam Babacar ak sa njaboot gépp tabaarakallaahu taxawula sa njaboot gépp ak bépp mustarshid ak mustarshidaati ak bépp julit fekki ko tabaarakallaahu te mu ànd ak wér yaay booy maa ngi lay ziar. waaw kay Jóoba maa ngi kontaan ci li nga wax ndax man awma lu dul soxna Safi Dem si Ahmad Tidiane Toom ñoo ma yar bàyyi gi tabaarkalla sóora Malik ak Serigne Moustapha ba ban gimmee ba nëgën si teraanga bu leen yàlla defal ñu ngi ma koy kon maa ngi leen di ñaanal yàlla yàlla gudde ban Serigne Moustapha moom mënu fay moom ndax wax dëgg yàlla yëg a ngi yemti nam ma def ci kër jëmb ja tabarkàlla mu xam xin ni kër jëmb ja moo ko moom ndax mag ña fa nekk ñi moom lañ jox la ma woon la woykat ba di woon nag sëñ kër Si jël na ndam li waaye ba mu ndam la ba mu pare xasir la ko jox xasir sa maama la jox ndam le moo ndam li moo jël ndam le waaye ba mu pare yow la ko jox di ma nati bam la ne xati rek kañ nga may dema tool nga waroon a xam ne jox na ndam le kon nag Malick Fa wax def ko yal na yàlla guddal sa fan Serigne Moustapha yal na nga dund ba doyal Serigne yal na nga uuf njaboot capitaine ak Fatima ak maam Babacar yàlla na leen yàlla jox njaboot ba nga uuf leen ci barke sëñ Babacar sëñ Moustapha mënuma laa fay de. kontaan nga ci xar mi ren de. barke sëñ Ba wax ma la kontaan xar mi waaye li ma ci gën neex mooy koñ bépp dagg di ko seetaan te tabarkala tabarkala fam fam ko commencé du ma ci egg nan ko daan jox yaay ndox ñu toog ba mu yàgg nga jékki-jékki ni kenn dootu ko jox yaay ndox maa ko jox nga di ko jox yaay ndox di ko boole gi nag paquet nag suñu def luy nuy Baye Omar Samb dikk bu ñëwee ni fëgg sama yaay mu fëgg mu box la ko doon dox la mu doon booxe ba nëgën yaa ngi koy booxe yàlla bokk ko ñàkk sëriñ Moustapha yal na la yàlla gudd fon gu ànd ak wér sëriñ Moustapha yal na nga wér sëriñ Moustapha yal nga dund sëriñ Moustapha lépp loo defaloon sëriñ Cheikh Tidiane Sy yal na la ko capitaine ak Fatima ak Mame Babacar defal nee naa Fatima keroog ca waxtaan na nee naa keroog yal na sëriñ Moustapha uuf njaboot ndegam allahuma ndegam ñooy seen tuur yal na nga uuf sa doom ay sët ci xale yooyu nag yal na nga uuf ay sët ci capitaine ak Fatima ak ma Babacar ci barke seen Babacar suñu daa mënatuma laa fay daa waaye yal na la yàlla fay waaye xam nga ne xar mi day <laughs> ku bëggoon téeméeri jën ko jënd duñ la duñ jaay waaye yow na koy dajale ba mu àgg damar kala sopp bu na nga jox yal na la ko yàlla gën a defal ci barke seen Babacar bëgg naa la sëñ Moustapha soxna sëñ Baye nee na bëgg na la ñëpp la bëgg si démb xuréji rax nit ku baax nga kuy sa baay Cheikh Ahmed Tidiane Sall Maktoum kuy sa maam Serigne Babacar Sy kuy sa maam Seydil Hadj Malick Sy tabarakallahu bu baax di la gërëm tabarakallahu amuñu sa fay yàlla la yàlla fay ci barke looy way jël naa ndam la na ni sëñ Babacar Sy jël ndam la fii jaadu waaw Moustapha la ko jox fii jar waaw ko jëlee sëñ Moustapha la ko jox fii jar waaw bam na ne xasir la la ko jox fii jar waaw oh. <laughs> sëriñ bi fii la ñuy yam alxaji bi ak moom dox bi jërëjëf <laughs>